salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi êtes-vous pour contre peine peine de la quoi waaw loolu mooy yoon parce que dëkk bi léegi dafa commencé am problème parce que gars yi léegi ni ñuy wute xaalis dafa yomb da nga gis nit koo xam ne liggéey ba dee yaakaar li mu yor pour yóbbu ko njabootam nit ñëw kar ko rek rey ko jël xaalis bi yóbbu am nga loolu dafa yomb léegi mbir mi dañ ko war a teg si yoon ku rey nit ñi rey la wala ku rey nit ñi tëdd si prison ba nga nekk fa ba dee waaw parce que ba ku ñu rey dootu ñëwaat waaw donc daal foog état bi jël ay xoolaat dëkk bi xoolaat ñu ngi doxalee affaire bi parce que vraiment dëkk bi commencé na am problème ken ñemetul génn kenn ñemetul dem fenn waaw. tey en tant que des jeunes ngeen nekk fi di daan seen doole. seen moroomu yeneen jeunes nekk ci réew mi di agressé di rey nit est-ce que yéen d'accord ngeen pour ku rey ñu rey la. non loolu moom d'accord ñu moom xam nga. ku rey ñu rey la ah? ku rey ñu rey la. ah waaw boobu dañ koo war a taxawal. Ah. waaw ku rey ñu rey la mu jeex tàkk. ku rey ku rey ñu rey la. Hmm? ku rey ñu rey loolu waaw ah, ku rey ñu rey la kay hmm. waaw. yow pour nga d'accord ko. Ah, parce que bakkanu jàmbur. lo nga lor nit ki loolu maanaam ma rafetul daal nga ray doomu jàmbur ba pare dikk yor sa bakkan dem di dund loolu rafetul. waaw loolu dana yéeme de mais d'accord naa ku rey dañ la war a rey ah. c'est normal parce que agression bi bëri na lool yaa a gën a xam. parce que fii sax booy wàcc par des fois yaa ma gën a xam da ngay tajak yi ñuy def leneen ak leneen ah. fii moom ku fi ray dañ la war a ray ku fi jam ñu jam la yaa ma gën a xam ku fi sàcc ñu dagg sa loxo xam nga mooy loolu yooyu noonu buñ ko defee léegi agression bi wàññeeku lu bëree bëree bëri mais en tant que ñu ngi négocier fii nii ku fi ray ñu jàppale njëkkante yóbbu la police xam nga loolu noonu loolu noonu baaxul quoi ci société bi yee noonu la demee. yow pour yow la ma waral agression yu bëri waaw agression yu bëri li ko waral lenn kese la jeunes yi ñàkk liggéey waaw di tëdd di nelaw rek yaa ma gën a xam ba pare bëgg ci téléphone yu seer yi ci xale yu mool yi te doo liggéey te xale yi dañuy laaj xaalis waaw yaa ma gën a xam la demee nag fi moment ah, dóor waar rek ñàkk a dóor dem saaci yaa ma gën a xam dem rey nit ak yeneen ak yeneen yee comme yooyu waaw fatal foofu waaw <laughs> yee nan la demee waaw ma bañ a nangu hmm. mais mooy yoon l'islam l'islam lan boo boo reyee ni ci maa tey ah mais l'islam lu mu rek buñ ko appliqué rek noppali quoi dañ fay bàyyi l'islam yoo xam si nii ay droit de l'homme ak droit de xamuma lan kenn xam yooyu ñu sonal waaye nga ñu yàlla digal ci lee du ñam benn yàlla suñu bopp moo ñu a suñu bopp moom moo fi indi ne a rey ku rey tey ko dañ laa war a rey loolu suñ ko defee rek noppali quoi léegi nekk fii di daan sa doole pour yow la moo waral agression yu bëri yi agression yu bëri li ko waral mooy dëkk bi metti na booy liggéeyatuñu comme par exemple xam nga ma gisaal nee na bërki démb jël na fi quarante neuf millions xaw quarante sept milliards la xaw ne da koy séddale ay ñaata famille loolu quarante sept milliards yoo man gëm naa ne bu jëloon benn milliard bu nekk yóbbu ko ci dëkk jëm ma def fa benn société boo xam ne au moins cent personnes wala cinquante personnes danañ fa xëy def ko ci euh, région Sénégal yëpp man yaa yaakaar naa moo tane woon mu jël xaalis boobu di ko di ko maye quatre vingt mille quatre mille ñaari fan nga koy lekk mu jeex gars xam nañ yoon man jàpp na ne xam nañ dañ koo nangul def yoon bi xam nañ ko def dañ def ba seen liggéey xam nañ ko mais ñoom li ñu xam mooy li seen intérêt parce que ni gannaaw lañ leen jàppee bu leen soxla suy leen pepp ñu ñëw après ñu lekk ñu defal leen liñ bëgg ñu dem seen yoon man jàpp na noonu la ñuy doxalee waaye buñ bëggoon seen i liggéey dëgg-dëgg bi leexi dinañ liggéey bien sûr hmm. non sérieusement peine de moom man moom d'accord naa si mais c'est que xam nga rek fii justice Sénégal dafa am fa demee quoi moo tax ah. loolu man moom wax dëgg fa yàlla peine ku daal. ku rey ñu rey la tamit. yow boo boo doon proposé nan la ñuy rey looy proposé. <laughs> loolu nag mooy cas bi. te en plus sénégalais ñu xalaat ci loolu. mais genre euh, nit ñi électrocuté loolu. genre genre non baaxul. non a état warul dox seen affaire de na ay rey yooyu yooyu moom dafa sedd. mais genre comme genre peine de mort ñu électrocuté la xam nga toggal chaise électrique. voilà man loolu laa xalaat quoi mais ay taal pour na moom yooyu moom dafa sedd quoi. waaye yow loolu d'accord naa raw loolu. Hmm. d'accord naa si ku ray ndiwala si ku tàll ba ka tàkk. waaw loolu la nga koy faj de amul leneen kay. yow ku ray. ñu tàll wala ñu doxal doxal cin ndox mu tàng dugal la si ëpp cin bi toog ci kaw cin bi loolu kese fi ne du leneen amul négocier de. Hmm. waaw bakkan yi rey ñu gis seen bakkan. ah wala ngaa lax jaar lekk. Hmm. man de maa ngi nii man maa ngi nii gis nga ma sama whatsapp a ngi nii waxaale naa benn matarak. benn matraque bi daw 6 boo xam te ni bala maa nit a ñëw nii jege ma door ma dóor la ko mais nag ay këyit laa wut maa ngi ni police Grand Yoff laa jógee. Hmm. dama koy légaliser wax naa leen ko lu ñu dégg naa leen sa ko Sénégal dëkk bi dafa bëri ay crime une deux trois salaamaaleykum ñu boom la dama jël say matukaay. voilà nag premier ministre bi ministre bi koy waxee sax Antoine nan. Félix Diome ah? ah. naa wax ak jeunesse bi ñu wuti am xëy. da bàyyi reen tegeeg boomante bi man daal si loolu laa lu ma siy wax. Ah, parce que adduna bi léegi dafa doy waar. tey jii lislaam ñun suñ dëkk bi nekk dëkku lislaam la. boo ko fi defoon tey jii ku ne am parole bu mu wax mais loolu mooy yoon fii adduna bi léegi bu dee nit ñi bàyyi nit ñi def seen zone doon seen justice su bopp. Eh, eh, léegi nan nañ nañ ni pendamam ku ku ñu rey la. yéen a seetlu. pour loolu la ma waral agression yu bëri yi. agression yu bëri li ko waral mooy xëy na adduna bi léegi doy na waar. te nit ñi kenn ku sa dematu sa xel te léegi la majeure partie léegi jeunes yi léegi cocaïne bi ak drogue bi ak li ñuy tux yàlla ci yàlla musal moo yàq ñëpp waaw. te ñi ci war a jukko si wax ci ñoo ci war a wax ñoo ci war a def seen euh, démarche yoobu surtout nag euh, ñi nga xam dañ leen dénk suñu réew mi waxuma sax président mais les takk der ñi nga xam ne ñoo ñoo war a gérer réew mi dressé ko dress boo xam ne ci yoon la bàyyi camp yi tëdd ka nelaw te gën jug taxaw ci dëkk bi dox li nga xam ne moo lañ war a def ñu def ko l'essentiel ko loolu mooy farata bi fii ku fi rey nit dañ war a rey loolu mooy yoon point barre point barre ku dañ la war a rey kay ndax dafa bëri waaw dangay toog doo def dara nga gis nit bu jige fële rek ray la man d'accord naa ci ku rey moom ñu ray la ku rey daal yow amoo ci moom sant non non ñu ray la rek wax bi jeex waaw kese kese waaw la moo waral agression yu bëri ak ray dëkk bu dëgër bi rek xale yi bëgg maanaam soxla soxla yu bëri yi bëgg-bëgg àddina yi te yemale wuñ ko loolu kase ko waral de du leneen kase nit bëgg iPhone nii amu ko nga ne xaaral ma raw nit ki rom man ko seetaan du jënd iPhone waaye nit tey jii nii mooy loolu ak bu métti bi booy boobu boobu boobu tamit da siy bokk boobu tamit da siy bokk booy dañuy dañuy door ak yow buy bëgg a dee xamuñ xam fu ñuy taxaw rek ay ah pare foot original bi la jël ay pion yi lañ booy dox ay pion lépp la def loolu da ngay taxali ko sago doo xam fooy def loolu daal wax ak jakarta bi mooy yooyu noonu nekk sase yooyu ñëwaat na te yooyu suñu ko nii gars yi xamaguñ ko ñëwaat na de jakarta mooy sàngara boobu nekk sase bi nii eh. jakarta bi booy jëlaat nañ ko de loolu moo gën a tax booy def crime boobu day rey boobu kay waxuma rey kay boobu boobu baaxut jeunesse bi daal li ñu war a def mooy lan wuti am xëy xam nga respecté seen bopp bu ñu bëgg nit ñi respecté leen dafa ñaaw si dégg-dégg ñu ne Sénégal nit ñaa ngay rayante pays de la teranga lañ nekk xëy am na si dëkk bi kay man mii la may def nii ah da nga koo xeeb maa ngi sant yàlla de dimbale sama bopp di ma mbokk dimbale sama jabar <laughs> waaye yàlla man na moom xëy léegi pour yow la moo waral agression yu bëri yi dëkk bi metti na mais nit nag dafa war di liggéey quoi waaw dañ ñëpp dañu war di liggéey boo liggéey da ngay am xaalis mais doo liggéey doo def dara nga bëgg affaire yu yomb yooyu noonu ku mu neex def ko mais duñ ko def dañuy toog di muñ rek mais ku rey daal ñu rey la rek looloo fi rek. ñu rey la. képp waaw. wax dëgg ak agression bi instant bi ah bon des fois da ngay dégg ñu naan ay ay ay ay chômage bi tax mais chômage loolu c'est pas une raison ba tax xam nga ñu agressé wala ñu rey tu vois donc moi je pense que gars yi dañoo inconscient rek en plus ak euh, moo uy sama nday ñu koy waxatee waaye bu ñu génnee prisonnier loolu ñu gracier xaw gracier bon peut être tamit loolu tamit ça joué na si quoi tu prisonnier bu ñu du ñu am sociale waaw insertion sociale. merci c' est ça yaa may tooyoon nag de mort d' accord naa si na ko ñëpp gis. na ko mais yéen borom moto yi nag ah, waaw mais mais mais loolu dafa ñaaw seen fii la ma xoolee xam ne clean man dama soo bëggee ba ma génne la samay yëpp ba si ordonnance sax yor naa ko ordonnance passeport sax dama koy doxantoo yow ah de ah <laughs> man lépp naa dañ laa war rey loolay yoon islam yàlla moo gën a xam suñu bopp fop te loolu la wax nañ tënku ci yàlla wax buñu bëggee am jàmm jeex na jaajëf taa capté ou fii moom yow am ak yeneen ak yeneen yaa ma gën a xam mais fii nii mooma ah. aussi tamit waaw damaa bëgg a waxaale lenn loo xam ne si nguur gi laa koy wax ah mooy lan ñu bàyyi jeunesse bi ñu liggéey waaw parce que gis nga ambulant man noobul la loolu laa bëggee ngeen xam ko ambulant man noobul la mais dañu jàppee ambulant man ay dof ay fuuta alors que demeewul noonu ñun ñii li ñuy am fii nii bëri na ñoo xam ne si nii ñu ngi si bureau yu toog amuñu ko li ñuy wàccaaleel buñ la ko waxul mënoo koo xam mais dañoo war a bàyyi nguur gi xam nga nguur gi bàyyi ñu ñu liggéey quoi mais dañuy dañuy teg fii nii suba ñu génnee ñu yóbbu ñu feneen wara ñu lal ñu ramasse ñu ñu dem feneen fay vingt wala ñu fay quinze mille ñu bàyyiwaat seen bagage loolu noonu la ñu war a bàyyi quoi yee noonu la demee nag. t'as capté. yeah t'as capté ou <laughs> fatalement la demee nag. waaw dañ jégale ñu rey la. non loolu am sax parce que xam nga am na ci yoo xam ne rafetut moo ko fi mën a jëli daal kuy ku rey sotti la essence taal la. ñu dugal cinq bëna sa yaram. cinq bëna. sotti la essence taal la ko defee ñetti nit. rey dina wàññeeku. ku dem ba war nit boo xalaatee ni boo rey nit ñu rey la doo ko rey. non noonu la comme ni mu ko waxee rek ku raay ñu raay la rek. waaw. dëgg kay waaw noonu la de. ku raay ñu raay la waaw c'est vrai kay. noonu la de ah. yow yow ko d'accord naa ku raay ñu raay la wala ku raay ñu la tëjee bi laa yomb dini jarul sax ñu lay atte. pare nga def proposition de loi waaw muy amul problème. Hmm. yàlla baax na daal yàlla baax na daal mais daal yoon fexe daal ba lii bu mu amati daal. ku rey ku rey daal ba nga nga dee. nga bañ am grâce. nan la fa bàyyi rek bi laa yomb dini quoi parce que li dafa yomb trop. waaw neexul nag bakkan ku ñu rey dootu ñëwaat dañ lay da ngay rey nit ñu tëj la 3 mois 4 mois ñu génne la ngay doxaat dox di defaat say kii alors que moom voilà mu ngi noonu. yaakaaru yaayam wala yaakaaru papam wala ko xam ne moo nekkoon yaakaaru voilà mu ngi noonu daal waaw mais dafa yomb trop daal nit daal bu rëy nit jaru sax ñu koy atte waaw jaru ñu koy atte parce que nit ki bu la tooñee dem nañ si yoon nga nekk la mu nga jàpp ko rey ko loolu rafetul waaw